loolu moom la ñuy présenté Yankaaw ndeysaan Yankaaw ak Kaaw caatu Daouda Fall Kaaw Gourdin bi mooy deuxième combat premier combat am da koo gañe woon Albarka Kayre Malick Ngom mooy bi mu ngi wax li arbitre le règlement bi nangu ak li mu bañ coup de sifflet moo boole coup de sifflet moo leen di tàqale yéen ay doomi mi ngeen ndam li génnul Sénégal compétition la que laaj na ay siisam nee nañ ko pare nañ avertissement benn Yankaw daa am lu mu sànni ñaar Bur Yankaw fa am lu mu laaj na Kaaw Gourdin laaj na Yankaw mbokk yi arbitre bi sifflé na ndeysaan sifflé na Yankaw Caatu Daawda Fall ndeysaan deuxième journée Idaly Gningue mercredi 7 juillet 2021 il est 19 heures 46 minutes fii ci arène nationale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 ñoom ñaara ngi noonu ba tey ndaysaan ñoom ñaara ngi noonu kaaw Gourdin ak Yankaaw ndaysaan gis ngeen la bi mooy deuxième combat ci compétition bi Yankaaw moo ngemboo ngemb Lagos lu verte li kaaw Gourdin moo ngemboo ngemb lu ruus li ndaysaan ñoom ñaara ngi noonu ba tey ndaysaan ñoom ñaar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 ndaysaan kaaw gurde ak yang kaaw ndaysaan ñoom ñaara ngi noonu ndaysaan ñoom ñaara ngi noonu kaaw cokkaas na yang kaaw kaaw gurde liy xeeñ boo xefee ci sa tànk yi la jëm maytul ndaysaan maytul maytul ndaysaan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 dara amul arbitre bi nee dara amul kaay leen kaay leen bërewaat du yomb arbitre bi sifflé waat na ndaysaan première action ba nee nañ tout de suite génn saako yi wala boog arbitre bi dafa àtte ndaysaan ñu ngi noonu ñoom ñaar yankaaw caatu daaw da faal ndaysaan ñu ngi noonu ñoom ñaari xale yi yankaaw jaatu daawda faal am na lu mu sànni am na lu mu sànni ndaysaan yankaaw am na lu mu sànni arbitre bi jóg na ndaysaan yankaaw ak kaaw gurree ndaysaan gis nga kaaw jàpp na kaaw jàpp na yankaaw yankaaw ngi yóotu amul kaaw gurree ak yankaaw siñoor yankaaw wiic na ko yaa ngi gaaw kaaw gaaw daa mën a bëre jàpp na fi mu jàpp baax na rëcc na songale na ko na ñoom ñaar ah ñaari xale yi ñu ngi bëre bëre bu rëy daan na ko yaa daan na gaaw gurde yaa ngi gaaw daan na gaaw gurde yaa ngi gaaw daan na gaaw gurde yaa ngi gaaw ci ñoo daan na gaaw gurde Junior daan na Kaaw Gourdin ndaysaan daaw sulli wàq wa plaqué ko sànni Yankaaw daan na Kaaw jël bu amul benn benn werante waaye daa mel ni Kaaw ñu ngi réclamé première chute bi Kaaw Gourdin moo daan ndaysaan gis ngeen làmba ngi noonu na benn victoire benn défaite